Donc on a déjà démarré par anticipation il y a à peu près deux mois. Aujourd'hui, on a réalisé au moins 80% de gros œuvres parce que le mur euh, est déjà terminé. Ils sont à l'heure actuelle au l'aménagement des vestiaires et la réhabilitation de turbines. Donc nous pensons qu'on est trop en avance par rapport au délai parce que le délai n'a même pas encore commencé. pressé. Donc, euh, le Premier ministre à demandé qu'on démarre par anticipation. depuis lors, on a lancé les travaux en attendant que les marchés aboutissent, parce que jusqu'à présent, le contrat n'est pas encore Donc, on a anticipé pour gagner beaucoup de temps. je pense qu'avant même l'approbation la, des on aura à d'exécution. Non, on a fait les murs de protection, c'est-à-dire que ça, on s'appelle les grilles de protection. Les murs de protection, les, les gros œuvres déjà terminées. À dakaar on est en de fabriquer les grilles en tant que telles. Nous pensons que dans un mois, il sera posé. À l'heure actuelle, on est en de réhabiliter la charpente et couverture de tribunes principales et la réaménagement du vestiaire et le déforage. Donc, les travaux de forage sont, sont encore démarrés. Nous pensons qu'on est à l'aise par rapport au contrat. Ah parce que on va mettre une couverture neuve en bac à couleur bleue, qui va donner le une autre euh, vie. Quoi. Voilà, ça, on a déjà tout fabriqué à Dakar. Donc on attend que les, les serpentiers la réhabilitation du serpent et puis pour qu'on la toiture. Bon, après la ah Parce que au marché des bases, il y aura pas, pas pris compte les exigences de la CAF. Mais dès l'arrivée du Premier ministre, le Premier ministre a demandé qu'on mette des travaux complémentaires pour mettre le stade aux normes internationales. C'est-à-dire qu'on va mettre Western, Western Arbitre, on va mettre les vidéos de surveillance, on va les salles antidopage, on va les infirmeries pour conformer aux recommandation de la CAF. Donc ça, ce n'est pas parti sur le marché, mais les auteurs sont en train de prendre toutes les dispositions nécessaires pour corriger ça, pour le répondre aux normes internationales. a une tribune qu'on dit dangereuse aujourd'hui. Qu'est-ce que vous allez faire par rapport à ce au Non, on va réhabiliter carrément les, tribunes principales. Et les autorités aussi sont en toutes les dispositions nécessaires pour qu'on réhabilite encore les tribunes découvertes et mettre la peinture, mettre la réflexion carrément pour que, donner le stade visage. 20 000 places. Le stade est 20 000 places. Et je crois Sénégal, à part Amitié, c'est le premier stade. Donc, euh, on va mettre aussi une gazonne naturelle de dernière génération. Mais les gason naturels, ils ne pardonnent pas la lutte. Une fois qu'ils organisent une combat de lutte, ils vont perdre carrément les gazons. Parce que c'est le même type de, de, de l'estade Amitié. Et Amitié, la lutte carrément parce que les gazons synthétiques, t'es pas Mais avec gazon naturel, impossible. donc c'est incompatible par rapport à ça. un beau stade donc aux sportifs ce soir Oui, bien sûr. moi, je pense que par rapport aux premières phases, le stade va ouvrir de matchs internationaux en attendant que l'État continue à mettre les moyens parce que pour mettre le stade carrément, il faut au moins 5 À l'heure actuelle, il y a 1 milliard 085 millions qui est disponible pour la première phase. Je pense que le gouvernement continuera à faire le La fin des travaux, on ne peut le dire actuellement parce que le contrat n'est pas encore sorti. Or que c'est le contrat qui fixe le délai. Mais comme nous, on a déjà anticipé, nous passons que d'ici de temps parce que je ne pas les circuits administratifs pour le contrat. Parce que nous aussi, on ne peut pas aller la fin carrément. Aller à certains niveaux, à 90%, on va arrêter jusqu'à avoir les assurances de paiement derrière. Non, La pour le moment. Il va préfinancer jusqu'à 90% de travaux. Maintenant, quand le contrat n'est pas sorti jusqu'à 90% de travaux, on est obligé d'arrêter jusqu'à la fin du contrat. Et je, je, peux aussi éclairer quelque chose, parce que je lis dans les journaux semaine passée, les gens m'interpellent, on peut sur Sejou. Or que nous, on n'a rien à voir par rapport à Sejou. Ce qui se passe à Sejou, il y a une histoire municipale. L'État a donné une entreprise locale à Sejou. L'entreprise n'arrive pas à démarrer. Les gens pensent que, comme c'est nous qui fait toutes les instances, c'est nous, or que c'est rien à voir, donc on n'est rien à voir par rapport à Sejou. La CSTP n'est pas attributaire des marchés de Sejou. Donc vraiment, pour que ce soit clair, Sejou, c'est pas nous. liggéey bi mu jeex ci délai bi nga xam ne moom la ko nguur gi bëgge parce que jàpp nañ ne bu ñu xaaree ba nguur gi pare procédure yi dafay gën a gudd te comme am nañu ay pexe pour mun a commencer par anticipation loolu moo am Thiès tey bu fii ma nekk di wax ak yéen amaguma contrat mais quand même wóolu naa nguur gi tax na ñu débloquer situation bi démarrer par anticipation depuis deux mois tey ji fii ma nekk di wax ak yow li ñu wax mbir bay bi jeex na ñu ngi fabriquer grille Dakar dans un mois dañ ko indi charpente couverture bi ñu ngi koy liggéey ñu ngi def aménagement vestiaire yi ñaari forage aussi démarré na te loolu moo nekkoon au gros lot du voilà dinañ ko bu mu set ñu ngi koy defar ci defar bi nga xam ne defar bu xarañ lay doon ba su paree ku fi ñëw xam ne la fi nekkoon ak lañ fi def du benn eh, ñu ngi gërëm yàlla bu baax ci loolu parce que yàlla may nañu xereñ ak xam-xam ci wàllu stade ci Afrique de l'Ouest waxuma amul ñeneen ñu ko man mais bu fii ma nag di wax ak yéen bokk nañ ci société gën xarañ pour def ko ci Sénégal ak ci Afrique de l'Ouest loolu nag yaakaar naa ne fierté la war a nekk pour Sénégal parce que yaa juróomi at ci ginnaaw bu ñu bëggoon defar stade il faut ñu dem wooye ay tubaab wala ay chinois mais fii ma nekk di wax ak yow Sénégal am na entreprise boo xam ne spécialisé loolu gëstu na dem na bitim réew jën ay matériel am fexe ba nga xam ne la tubaab yi def mu def lu ko gën su ko que loolu fierté la pour réew mi que amul amu fi woon ba ñu ah oui oui oui parce que xam nga bi ñuy defar marché bi jëluñu woon en compte existence su mais bi premier ministre ñëwee di lancé travaux yi la wax ne stade bu mel nii waruñu koo defar te du am certification CAF tax na mu yokk ci travaux yi nga xam ne moom moo war a complété stade ba mu répondre aux normes mu wax état bi na ko jël à charge ñu ngi discuter ak ñoom foog nañ ne balaa ñu fiy génn dinañ ko réaliser ba nga xam ne ku fee dugg ci stade bi duggoon fi dem xam ne du ah oui oui oui wax naa ne daañu ko ne préfinancement bi parce que xam nga aussi depuis longtemps nga commencé amaguloo marché ba léegi métti na waaye comme ñun ay sénégalais lañu bëgg nañu gonge nguur gi daañu ko ne loolu waaye nag duñu liggéey ba mu jeex tak parce que su boobaa duñu am fu ñu teye daañu liggéey ba mu am 90 pour cent même bu marché bi parewul mais bu ñu eggee 90 pour cent quand même daañu tey suñu loxo ba nguur a def voilà donc waaw woon ci liggéey bi mais quand même li ma la wax rek wax na ne Thiès est important engagement président de la république la personnellement bugg na tribune yooyu yëpp ñu boole ko ci réfectionné ko peinture ko ba nga xam ne dina mel ni Demba Diop wala mel ni Amitié te yaakaar naa ne loolu dina am parce que cent ans de premier ministre la donc agence de construction et de service public directrice bi wax na ma ne ma dinañ ci boole travaux yooyu yëpp comme ni ko premier ministre euh, santaane amuñu problème par rapport à ça dañ ko kon def li ma bëgg leeral rek mooy affaire gazon bi pour wax ne gazon naturel li li gazon synthétique sax di xaw nangu tuuti naturel nanguwu ko may ñaan nguur gi mu jël toutes le dispositions nécessaires jéem a dem Maniang Soumaré wala mu defar benn arène mais pour wax leen ne investissement bu ñu ñu def lu mu baax baax baax gazon naturel moom boo ci defee bore day yàqu carrément te kenn dootu ko mën defar te defal lu too ci lu toll ni nga defoon kon maa ngi ñaan nguur gi mu anticiper wutal waa Thiès fu ñu boree te xam ne bii ak amitié bu ñu paree ñoom ñaar ñooy niroo te foog naa ne war ñu ko sàggane ñu ci bore yàq ko parce que gazon naturel te gazon naturel moom du baal bore ñaari fan donc euh, waaw bu fi amee daal état bi moo jël responsabilité xam nga ñun suñu métier du wax ne dina am wala du am ñun suñu pouvoir agul foofu suñu pouvoir fu mu ag mooy wax état bi lii boo ko fi defee bu paree sa responsabilité yaa koy garantir ñun daal mun nañ ko garantir bu fekkee loolu amul su amee nag suñu yoon newatu ci léegi nag état mooy xool ba xam ndax mu sàmm yëf yi pour intérêt wala mu yàq ko lu mu ci def baax na de toute façon ñun ba pare dinañu fay su ko yàqee it bu ñu fayaatee ñu defaral ko mais li wete woor daal mooy bés bu ñu fi organiser lam dina yàqu ndax gazon naturel la ndax gis ngeen ne amitié ba mu pare bu léegi kenn mosu faa bore parce que ñoom ñoo la gën a xam ne bés bu ñu fa defee lam mu yàqu kon foog naa ne am benn stade kese dem yàq ko ñu suspendaat Sénégal ngay ngay football bi bitim réew gàcce la war a pour Sénégal ba jàpp ne ñaari stade gazon naturel bii ak amitié ba pare nguur gi dina ko sàmm fexe bu ñaar yooyu kenn du fa bore kenn du fa def naka su dul noonu pour suñu réew mën a am nekk ci fierté et mën a am yaakaar bu tabaxee beneen stade Diamniadio xëy na dina mën organiser Coupe d'Afrique des Nations voilà merci beaucoup.